asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi amaat mbégte amaat kontaan te beneen yoon fas yéene toogaat fii jàkkaarloo ak yéen gi bàyyi ko fii ci Sahel Network TV Banjul capitale Gambia ñun moom lañ am moom la ñuy ndamoo te wax dëgg na yàlla àdduna bi yëpp ñun moo ñu fi dàqal. dañu leen koy wax euh, di wax ne rek maa ngi ànd ak sama ñaari malaaka yu ndaw yi ah, bu gàtt bu xees bi macha allah su njooloon dina mën a bàyyi force mu neex ko a naxari ko ak bu njool bés leen bu ñuul bi macha allah muy anti Ada anti Aïcha waaye mbokk yi dañ am gan gu tedd ci biir kër gi euh, dinaa bàyyi xale ñu nuyoo nuyoo bu gàtt rek ah, bu gàtt rek euh, laata may wax ki nga xam ne moom mooy gan gi nga xam ne moom lañ fas yéene waxtaanal ci kanam tuuti rek incha allah anti Aïcha oh anti Ada asalaamaaleykum àdduna asalaamaaleykum àdduna uh, wërngal képp di leen nuyu di leen jaajëfal di safoo ñenn mi safoo di seetaan Sahel Network TV di leen wax ne fii la lépp di xewee suñ beneen partie good morning show ndeysaan uh, yóbbalu bés bi Anta Aïcha asalaamaaleykum Gambia asalaamaaleykum àdduna nuyu naa képp kuy seetaan Sahel Network TV ziyaara leen sargal leen di leen bëggee Aïcha teewaat si kër gi rek bëggale naa jox yóbbalu bés bi kan nag sàppe na bi ñu xool si waxtaan. ñu ñëw ak yóbbal gi mbokk yi ndeysaan ki ñu fas yéene dalal tey mooy ku ñëw wax moom Momodou Sarr wala Modou saar am na ñoo xam ne duñ dee bëgg Momodou am na ñoo xam ne Modou lañ dee bëgg kon Modou Sarr la ñuy dalal ah, xam naa suñ paree rek suñ koy nuyu moom naaf yoo lañ koy laaj mexe mexe tàmbin na la ma ndaw sa waxoon ma ne ko tàmbin naa mu ne ma faas <laughs> kon mbokk yi ndeysaan ndaw lañ am loo xam ne ndaw la ci euh, njabooti réew mi mm-hmm. muy wuyoo ci turi moodu saar moom nag juddute Banjul la Banjul fii la juddoo te it nag euh, jaar na euh, Marina Primary School waaye continuer fa seen high school bi te it nag bu ñoo topp jaar-jaaram ba tey rek jàngee na ci université bi mooy daara bi gën a kawee fii ci biir réew mi muy université bi def na yeneen jàng na yenn pàcc xam-xam yu am solo yoo xamante ne nii njëriñ na ko waaye mu ngi ñoo njëriñ ci suñu jëmi bopp mu nga yaroon nag fële ca Kóotu te jamono ji Kóotu la nekk Amadou dañ lay bay nga nuyuwante ak aduna ñi lay seetaan. tàmbil na. <laughs> tegal ngeen ma sen sen olof yi ak def. allah allah def na understand bi nga di dingal bi. te ay ne def amin, amin, amin. Amin, amin, amin, amin, amin. waaw gis nañu yaa ngi yëngu ci lu bare bare bare bare bare tey nag dañ bëggoon nga wax ñu yow ci yan ak yan ngay maanaam ci yan bunta nga nekk di fugga yan wàllu business nga nga boole. dëgg la waaw so man right now. mun mhm. naa wax ne concentré si IT laa muy computer. waaw ah. nga ko waxee noonu. mun naa ko waxee noonu. information technology. Ah. waaw kon dafa yaatu. waaw yaatu na yaatu na trop man personally man dama dee develop website. ok so web designer ok waaye um, dama am team. Mhm. Um, boo xam ne am na ay liggéey naa some développers. Mhm. ba pare dañ dee defar so ñu ne négocier maam la ooyee e-commerce. ok so bokk nañ si some of first people ñu jéem a drive lu noonu fii. Mhm. maanaam business yi internet daal. so si loolu si kaw loolu nag lañ try ñu am uh, su ñaari project yoo xam ne. si moomu tam nañ fa dee nekka. so dañ dee am yenn web design yu ñoo def si clients yi. waaye ñu am suñu own e-commerce projects yoo xam ne ñun tam suñ compagnie bi moom loolu li ma jaaxal computer man naka la ci nit mun a jaayee moo ma jaaxal parce que mu maanaam mënuloo faa dugal jaxatu mënuloo faa dugal bataanse mënuloo faa jaarale ganaar léegi nu ne di mën a jaayee ci computer loolu moo ma jaaxal. man loo mën a def loolu. waaw ci noonu. am na solo macha allah. waaw kon leeralal ñun naka ngay defee loola. exactement so loolu moo fi isi sax. waaw kay yàlla fa def am dama tase Oumy. am si bachelier am si benn business am um, um, forum. Mm-hmm. so léegi fekk ñu doon jéem um, wax affaire e-commerce ak uh, business syndical. ok so man dama am uh, plateforme bu ñu ooyee Pronto.

so soo gisee man tam xam naa ne ma dee lay lan moo tax yow Africa fii nga jël ko. Mhm. ma ne leen man because from day one. Mhm. suma idea mooy ne suma dream mooy ne benn bés from Gambia fii. nañu ubbi business outside. you know mhm. Amérique billaahi maa la bëgg dina am. man man loolu laa loolu laa. billaahi dina am. you know so. this is so so loolu ñooy léegi nga gis seen abdoulaye su ñëwee fii nii. Hmm. ñu téye soo àggee seen dëkk booy dem ma bàyyi ndax man pronto boobu bëgg naa leen ko wax. fi ne nii moom loolu nañ am show bu ñu tuddee pronto léegi léegi. waaw waaw so so so so tey tey su nit soxloon su nit soxloon ay bagage wala yan xeeti bagage. Hmm. ci ci moom ngay jaay moom ngay business online yan xeeti bagage. very so so léegi man nañ am benn app. Mhm. boo xam ne léegi ah, si app bi am na shop. Mhm. so léegi mhm. shop bi léegi ah, lu nekk a fa nekk. so loo xam ne mun nga koo gis si supermarket bi. mun nga koo jënd. yàlla def ñu am partnership ak Q Money. léegi Q Money ñoom tamit ngi am mobile money bi gars yi du bugg a push. so mu def ñu basically the first kind of Gambian e-commerce company boo xam ne yaa ngi use Gambian payment gateway. nga xam ne si Gambian system ngaa use from start to finish. am na solo so état bi mun nga faa dem nga jënd fa kon li maa lay jaatee yu noonu yéen. waaw des fois moo fa jaatu waaye naa ko fa def <laughs> incha allah noonu. am ah, ah, ko fa def mun naa dem nga a ko soo amee sa kii money wallet bi. nga dem nga gis price bi. very simple nga nga jën jënd ko check out bi dañoo am message bi. Mhm. suñ ko amee ñun ñu deliver la ko. Mm. so nga gis si jamono bi nekkan yi nga xam ne xam nga. waaw business yu bëri ngay dégg xam nga mhm. so it's loo xam ne. su ko mhm. nit yi understand. it mhm. leen a dina leen jëriñ dina leen jëriñ. anti ana waaw so yéen yéen façon bagage jaay foofu ndax only packaging bi la wala local goods yi tamit dañ ko dee mën a gis si internet bi foofu noonu ñu mun koy so so na moo am mun na moo am right now. Mhm. Uh, li fa nekk right now mhm. dafa limited to some some products nga xam ne moom la ñuy ji dee a laaj. ok uh, from supermarket si. waaye su ma su ma man mii su ma a seet nu ma defee market foofu noonu. Mhm. nga xam ne dafa simple soo yow soo bëggee jënd comme jaxato salade ak yooyu noonu yëpp di nga am noo ko koo jëlee di nga am noo ko um, defee mu simple mhm. so loolu moo tax dama bëggoon a jël tuma toujours time pour def loolu mhm. waaye mun naa ne fii ba next week naa ko def mhm. loolu du nekk problème problème waaw waaye rey lu fa nekka moom mostly looy gis soo mag yi la seen you know meew yeeg meew um, yeeg conflicts yooyu noonu waaw yooyu loolu kaj down kaj up ban euh, ban laaj nga ko amal. parce que léegi tey ñu tàggatoo moom. Ah, waaw comme man ma gis ne comme ngeen ne da ngeen dee def service livre leen yi nii di ah. dem si kër di joxe ah, maanaam ku nekk li nga jënd ñu deliver la ko. Hmm. yéen seen liggéey ban wàllu liggéey bi ban façon yi jafe-jafe ngeen fa dee dunda Wow, definitely that's the loolu question bu am solo la because the nekk law, Hamne, you know mën naa in some ways dëkk be tamit infrastructure bi eggaamut foofu noonu in terms of ne si nekkoon yeneen dëkk yi xam nga di nga am sa street name si loolu dafaa gën a easy nga xam fooy dem waaye ñun lu ñu lu ñu gënoon a jox tuuti fit whatsapp léegi comme fu mel whatsapp mu nga seen sa location Dinga Ham. Wow, do du dee nekk hundred percent all the time where me ngee teneen ba most of the time daf dee daf dee accurate you know so so so loolu at fa um way way way tabit um len yenen lenn fi lifin um, uh, problème yu ne mën gis sometimes moy ne xam nga culture na miin ko. Mhm. su am yena waaw su damaa am yena yena comme ñu ma liggéeyal. Ah. Mhm. ma lay ne dama nga def delivery bi ni ñu fogné hegna ci na si diggante jaar fi jaar fi <laughs> du time la yow time la kii kii kii lu mu bëgg a léegi la ko bëgg a. léegi la ko bëgg a you know so so léegi li ma bëggoon a aar rek mooy ne. Ah, mhm. si aar bi léegi parce que dooree lekka. sa expliqué restaurant si lañ dooree woon. so ñu ñooy def first um, uh, uh, delivery service boo xam ne mun nga ñëw ko o mun ngaa use app bi ñu dem ci restaurant ñu isil la ko mhm. waaye léegi ñu expand so from ñu isi comme goods yi nga xam supermarket mhm. léegi naa def market lifin bi waaye so korea korea waaw luy korea ti maanaam documents comme léegi offices yi bu ñëwee seen documents ok ok ok ok ok mën ñoo jël seen moto yooyu noonu et si li dañ dañ dañ leen a xool ya yéen a ngeen xeex monsieur Ndiaye de non da ngeen xeex monsieur office non monsieur na ñoo ñëw ñun ah mën na ñëw delivery bi euh, comme naka ngeen ko ba nit ñi mun see so man maa ngi liggéey from disruption lab bi um, mm-hmm. uh, Atlantic Road. Mm-hmm. waaw so it's eh, somewhere found fa la nekk right now mm-hmm. uh, uh, loolu si loo xam ne tam a. ndax mu gën a lifin dafa am laaj bu mujj boo xam ne ndax waxtu xoj nañ fu mu nekk nii. xëy na dinañ euh, teg ñaari minute rek li ma jaaxal mooy danga nga jàngal loo khusus ci luwaay yi nekkal nekkal looya. dégg nga maam mu bàyyi fa affaire loya looya. ci tam la mu ci affaire de la computer ak affaire de la web design moo jaaxal naka la fa demee noonu. waaw loolu question good question because ñu bari nañ ma dee laaj loolu maanaam ñu suma yaay foofu ma dee xool nii ñu studé bi li tam two things la benn bi suma buga buga la benn bi suma gis-gis la do and bi anu hmm. ànd ci di demee. ok hola hmm. right now fi mu nekk nii. right now fi mu nekk nii. pandémie bi ni ñi soxla nañ ko ah kay ah kay du du ko ba. koot ba sax teñ na di. koot ba sax teñ na. dëgg la. you see dëgg la dama fu ma dama lu ma gis. luma la ma gis fu Afrique ni dem. Mm-hmm. ak li gëna lu gëna am solo ci future soxal nit ñi lo mu ndi def. even mm-hmm. lo sax. Mm-hmm. IT na ci bokk. waaw even ñen sax ci fi ay ngeen nekka. aha kay aha kay aha kay aha kay aha kay aha kay aha kay so ba pare ma amoon passion pour pour pour yëfi technologie bi ma nekkee xale. Hmm. so bi ma jeexalee suma first degree bi. Hmm. time boobu noonu yàlla fale bu ma ñëwee si dëkk bi. bu ma dugal si politique yeeg yooyu noonu eh, waaye long hmm. story short daal. ok loolu naa ne am gënoon naa. explore daal ma seet bi ko gisoon naa ne comme yi fi web design yeeg yooyu noonu yëpp xam am ay tooga defal leen ñu mm-hmm. maa fee mm-hmm. mm-hmm. so so def ma tasee benn Kenyan bu bëggoon a ubbi benn compagnie fii ok pays ah, in Dubai mu ne pour ma ron ko so bi ma doon ron compagnie boobu noonu um, almost two years maa faa liggéey um, yàlla def ma gën a understand affaire yi e-commerce affaire yi mm. am internet businesses mm-hmm, mm-hmm. foofu nag laa dooroo di xam nga you know may waroon na dem jeexal lu ma lu ma lu ma commencé di am passion nag waaye dégg nga dégg nga. est-ce que non bu gaaw a ñëw neex. a a neex. ndeysaan mbokk yi euh, na wax naa waxtaan boo xam ne ndeysaan gàtt na waaye am na solo lool doyalu ma nag waaye li olof di wax rek xalam demoon na bay neex buum ba dog na dañ lay bàyyi nga sànni kàddu gu mujjee rek ci programme bi ndax dinañ la amaat beneen yoon parce que am na yeneen laaj yoo xam ne foog ñu dugg ci wàllu loo <laughs> incha allah. ñu bàyyi la nga sànni kàddu gu mujjee rek ci programme bi baax na baax na so jërëjëf eh, jërëjëf jërëjëf kon moo ko waxee rek sa hmm. liggéey moom baax na macha allah um, ah, yal na si you know yan na yan na ginaa dem kanam Amin ya. rabbi ah, yal na si gamis ginaa duga amiin yaa rabbi dem liggéey youtube yi yëpp lu bari mun na mun na see hit dëgg la dëgg la ah, jamono baa ci rek dëgg la bëgg naa wax tuuti nag pour pour pour pour um, gërëmal rek ñoom ki waaye kiw man yi mm-hmm. definitely Gambia man suma expérience yi ma duga si business ñu bari nag taxawal nañ ma mm-hmm. xam nga ñoo xam ne dimbale nañ ma gis naa ne fii loolu mu ngi ñoo xam ne yëpp nga dimbale young entrepreneurs. Mm-hmm, mm-hmm. du du borom restaurant yi Um, Q Q Money mm-hmm. businessman yi ñooñu ñëpp koo si approche soo si toogee ne lii laa bëgg a def rek they are very open mën mm-hmm. nañ laa wax seen jox mm-hmm. loo xam ne dafa dee gën a jox motivation because because nga gis ne yeneen xale yi ñu bëgg naa defal loolu dëgg la dëgg la ñoom ñoom unique solutions you ñoom ñëpp definitely definitely dëgg la jërëjëf jërëjëf dëgg la tey ku la soxla lan mooy sa téléphone number sa weneen uh, uh, ba tiwita laa tiwita lañ ko waxee wala <laughs> Facebook ak ak su am nga <laughs> nga jox ñi nga ñu yet style dinañ ko bind si screen bi pour mm-hmm. dina ko bëgg jot um, pronto mën call si 534 6656 ngi on Facebook best delivery Facebook best delivery best delivery Facebook ok on on uh, naka Instagram Instagram Bayu yooyu dafa am ñeneen ñu ma doon liggéey ñoom ñoo la gën a handul ñoo gën a ok man sax léegi dama war a delluwaat sax gën a gën a jàngal ci biir mbokk yi jërë ngeen jëf lii lañ leen amaloon fii ci biir kër gi Sahel Network TV la ñu dalaloon suñu gan gu tedd gi macha allah Mouhamed Sarr wala Modou Sarr ma àndoon see anti Ada anti Aïcha di leen wax ne leen incha allah prompto waaw waaw prompto na thank you so much bye bye